que lan la fi jot a euh, dund fii ci euh, dakaar gis nga li nga xamante ne li nga xamante ne euh, régime bu bees bi toog nañ ba ñu laalee magistrature suprême daal di déjjati yóbbu foofu tey lan moo war a doon rôle am bu fekkente ne dafa war a jaar yoon rek moom waru fayonteeg régime bi mhm. waru fi nekk di def dara lu dul liggéeyam liggéeyam lañ ko laaj teg ko ci yoon waaw mhm. teg ko ci yoon mhm. mooy gis nga man yàgg naa dem tribunal mhm. juge juge mhm. Mhm. balaa muy joxe verdict day wax nit ki nii nii nii nii nii ak yow procureur tey contexte bi mayu la ngay poursuivre Bougane ndax ay refus d'obtempérer xam nga refus d'obtempérer mais du crime gendarme ne la taxawal fii nga ne taxawuma refus d'obtempérer ñu ne ordre nga ne du ko def refus d'obtempérer du dara mhm. dañ ko wax boo ko téye foofu boo ko téye foofu procureur bi tey bu ko inculpé woon mhm. tey la kañ du du lundi suba mun na dem flagrant délit wala mercredi wala jeudi mhm. yaa ngi di bu demee flagrant délit xam nga ki mu kii juge bi sursis la koy dóor mais tu imagines fii ba vendredi nga téye Bougane Tamba mais bu fa jógee bu jógee si sursis bi ba war a dem campagne te campagne ba dimanche lay commencé. Mm. non mais yow mais tu tu fais de Bougane l'attraction. moom la ñëpp topp parce que xoolal premier jour ba ku ne dina bëgg déglu lan mooy version Bougane lan nga dundee affaire bi waaw moom la ñëpp Bougane bu doon jooy na sax si si tribunal bi du leen wax jooy naa ci tribunal. Mm-hmm. xam leen di wax dama ne bi ah doo dara xam nga. Mm-hmm. jaay xolo xolo xolo et à nag. Mm-hmm. comprendre mu la wan gars ni ko guerrier la mhm. et que man man sax bima juge bi wooyee dem na mais Ousmane Sonko mom biko juge bi wooyee demul mhm. dégg nga wax mhm. donc yi dama ne jar ko won te ñep ñep les gens armés de bonne foi ay ñom euh Seydi Gassam les partis politiques ak de simples citoyens hein mais def nañ ay poste wax ni li vraiment gis ñuko ko du ko fi jar

mën mm-hmm. na nekk eh, eh, peine ferme eh, tey bu ñu demee ba àgg vendredi à minuit mm-hmm. vendredi à zéro heure nga xam ne li nga xamante ne mooy campagne bi dafa war a démarrer mm-hmm. nan naka lay naka lay demee Bougane bu boobaa nan lay nag est-ce que dina mën a génn dem battre campagne wala naka lay demee non non xam nga moo tax man la loo gis rek dafa am dose d'humanité comprends moo la moo moo tax ñuy wax le juge sage comprendre moom la dama gis sànq kenn ku ne bu doon benn sénégalais simple la mhm. mu def refus d'obtempérer ah suñ ko tëjee ñoom Seydi sama duñ si wax kon non c'est pas la mhm. parce que répercussions yi la moo tax man su may defee refus d'obtempérer maanaam kii ne ma euh, benn policier ne ma tey tali bi dañ ko tëj ma ne ko sama droit fii du sens interdit dama fi war a jàpp mu jàpp ma yóbbu ma si kii bi loolu maag Bougane Gueye Dany duñu benn contexte yi duñu benn mhm. dégg wax mhm. on dans un contexte tendu comprendre moo la mhm. boo xam ni par exemple tey xam nga euh, soo jàppoon Bougane Gueye dani mu dawal sans permis ah du même contexte que bii parce que boobu sax yow yaa koy jaay. Mhm. ne ko ah ñun de dañoo def suñu liggéey rek. Mhm. Bougane sénégalais la simple citoyen la. Mhm. dafa war a am permis tenir da ko war a loolu. détenir mais dañ ko laaj permis amul permis moo tax ñu ñu interpellé. ñu interpellé ko. mais bii du benn bii xam nga lan la bii acte politique lay gën a niroon que acte. contexte bi du benn les personnes ne sont moo tax lii li muy laaj mooy verdict d'apaisement comprendre mu la mais euh, Omar maa xam tamit il peut se dire ku tey libéré Bougane mun nañ jàpp ni day fay mm-hmm. day fayoon teg gaay mm-hmm. comprendre xam la mm-hmm. mais léegi qui vivra verra lu ak lu munti def lu acte bu munti def rek gars yi nañ ko dinañ ko dinañ ko loolu dinañ ko interpréter. li liñ naan maa ngi lay xool. Hmm, assur. <laughs> gars yaa ngi koy xool. Euh, hmm. du bëgg naa ñu ñëwaat tuuti ci communiqué gendarmerie bi. Hmm. parce que sax.